mais kii kii dafa mel ne Mouhamad Mané la waaw. eh waaw mais Mouhamad Mané ah man de waykat yi jaaxal na fekk di. mais la wax. mais Mouhamad Mané. waaw mais Mbaye. mais Mané dag maa bett. ah ci la noonu. dag maa bett de man de xamee wu ma la woon. ah da xamee wu ma damaa taxaw lu yàgg mais bi nga bi ma bi ma gisee sa sa ma ne waa kii du Mouhamad Mané. Mbaye. mais Mouhamad Mané.

mais maanaam maa mbay mbay àdduna. Uh-huh. àdduna àdduna nii rek la. waaw ah nit moom. da dangay da ngay nekk fa nga war a nekk rek nga doylu xaar yàlla. waaw mm. waaw. metti woon na. waaw ah. mais àddina moo demee noonu daal mais. lépp lu métti woon rek mi ngi neex parce que. àddina ndànk-ndànk la. te lu jot yomb. ndax yàlla. léppam da koy mm-hmm. jaay mm-hmm. mayewul dara mm-hmm. waaw mais da koy jaay nag ak prix yomb prix yomb bi gore te ngor moo joxe suñu génération parce que ay nit bu ñu nekkee dañuy ànd ànd yàlla ànd gor parce que am am ku ci toppee nit bés bu la noppee jox rek nga bàyyi te man yàlla bindeewu ma noonu te yarewuñ ma loolu mën naa ni parce que man boo seetloo sa kër ga laa yaroo kër yaay Thial la. Mm. ci ay pap parce que mën naa ni Baye Cheikh Diouf moom moom moo moo ñu yar. Mm. parce que man suñu kër tëdd moo faral yóbbu. Mm-hmm. balaa muy tëdd tëdd la parce que ay maag pap dañuy nekk huit heures ci suba. ba mm-hmm. trois heures du matin. Mm-hmm. su ma demee suñu kër dina temps laay tëdd su ma maa ngi kër pap waaw. bi ñu lay xamee ba tey yaa ngi si pap mosoo bàyyi. waaw mais parce que pap ñoo bokk ndey ak baay lii sama yëf la. ñaar sama yëf la du groupe pap groupe bi sama group la. groupe bi sama groupe la. Mm. Mm. ñi fi nekk ñëpp ak ñi ñëw ak ñëpp dañoo fekk ak pap mm-hmm. waaw moo tax mm-hmm. lépp lu may def rek dama ciy xool pap mm-hmm. parce que nit. pap duma ma xaritam pap ñoo bokk ndey ak baay. yaay càlla maay doomam. Baye Cheikh Diouf ñu ci dëgg. ñu ngi ci fen musul bëgguma laal. barke mhm. xam na loolu. Mhm. tey suma diggante ak moom. Mhm. ñaari frères yu ànd la. Pape mën naa mel nii mais bul ko laal. man it bugguma ko ko laal. tey lu ma mer mer mer Pape ñu ne ma eh maman mu sedd ma bàyyi mu sedd. Pape tey lu mu mer mer su ma ñëwee ne ko mbër bàyyi mu sedd. day baax. Mm-hmm. parce que ñu ñaar la mm-hmm. waaw te ànd loolu mooy ànd xam nga mm-hmm. ànd yu bari mbay lu ko yàq nga ànd ak sa xarit teg sa bët ci li mu am bu yàggee iñaan am bu yàggee mbañeel am ah. bu yàggee tàqalikoo day am nit booy ànd ak moom liy wër sa gëm yàlla moo ko jox ndax ku doon may sa bopp da ngay tibbee gauche tibbee droite mais yàlla mooy décider te loolu mooy ànd ngor man lu ma am baax na man naam lu ma suturloo rek ak mu ko rafet xëccoo ma dara. Mm. parce que may su yàggee est-ce que duñ ne kii dafa ñàkk fayda wala dafa gëm boppam. non du question ñàkk du question bañ a gëm boppam xam nga mm. maa ngi sant yàlla. Mm. doomu aadama yi bu ko amee rek na sant yàlla bu amee wér. bu xiifee lekk. bu gëmmantew nelaw. bu tilimee fóot. na ko sant yàlla. nit ñi ko waaw tey man. pap sama xarit la mais yàlla moom la jiital. tey mooy sama patron man. Mm-hmm. bu weesoo affaire xarit. Mm-hmm. mooy sama patron ndax moom la yàlla jiital te nit bu ko yàlla jiitalee. Mm-hmm. nangul li ko yàlla defal. te pap ku ko jegewul doo ko xam. mais am na ñu bëri ñu ko jege. man ak xaadim mën nañu ko xañ sax ndax ñun la jabootam lañu. Mm-hmm. jox leen ko ñoom. mais ñi muy defal lu baax nañ koy wax ñi muy jàppale. Mm-hmm. ba ñu tedd tey. Mm-hmm. dem ba ci biir def di indi yoo xamante ni comprendre ma. xoolal. jàpp na nga jàpp ne am na ñoo xamante ne Pape mi leen di defal te duñ ko wax. mais mais maanaam dañuy laaxatu. mais mais yooyu nag hypocrite la. mbay ku la defal lu baax wax ko. mbay Pape x la ma jox. X6 du ay tiaxan kañ ko jox. bi bëgg tabaski. te joxuma ko nii mai à mm. parce que pap bu lay may sax day day am kersa pour xol la. Mm. surtout sama digënté man ak mom mm-hmm. tay man suma soxla damay ñëw fekk ko. Mm-hmm. amu jabar ba gi te damay ñëw ko saway mbeura ah, man ko ñëwna mm-hmm. li la bëgg jox ma. non Pape du joxe Pape du joxe. mais mais mais xam nga tam kay mar benn Ya y a beaucoup de personnes yoo xamante ne soo leen lan moo tax nga jugee si Pape mu ne Pape du joxe. waaw mais xam nga xam nga joxe dafa bëri te wute. Mhm. xam nga joxe fa lay neexee farata. Mhm. Pape farata lay def. du def gis leen ma. farata lay def. du def gis parce que papaam mhm. man maa toog barki Mouhamed. ci waxtu koor gi. maa toog papaam ne ko. damay bëgg lépp looy def. sa loxo ndeyjoor bi bu ko càmmoñ bi ndax def bu demee ba ndroog ngistal dootul def wanewu la te yàlla bëggul loolu am na ku ma dégg mu doon joxe te ñu ne ko lan moo tax nga koy fësal mu ne damay bañ joxe di ko fësal dafa baax parce que ñi nga xam ne duñ joxe day tax ñuy ñuy joxe jàmbaar euh, euh. waaw mais kaay kaay ma la benn mm-hmm. mbay ni ku ne am nañ la yaree mm-hmm. am na ñoo xam ne tey boo leen tay tey suppu kànja duñ ko lekk. Mm-hmm. mais bolon leen toggee sulux ñu ñu lek ko. Mm-hmm. te pourtant sulux am na kànja suppu kànja am na mm-hmm. mais duñ lekk suppu kànja. est-ce que bëgg-bëgg yi nekk na benn. léegi ku bëgg jabar ku bëgg jabar. ne man tay man suma jabar du mel ni Sodoma ma Fall bëgg ci ñu ñu ju rafet. am ko xam ne man nga bëgg jabar ju xtal ku respect ku mel ay de champagne léegi ci xam na fi nga waxee. ah. Mm-hmm. Euh, àddina. Mm-hmm. yàlla moo yàlla yàlla yàlla mooy teral nit. Mm-hmm. yàlla. mooy teral nit. kenn teralul sa bopp. tey li war a ñëw ci man yàlla jaarale ko ci Pape Diouf Pape Diouf daf ma koy jox. parce que yàlla moo ne ko ah yàgg ma ne ànd kat wërsëg bii. maa ne ci yow nekk sa loxo laa koy jaarale nga jox ko. ma koy jox. loolu laay dund. Mm. maman nag. waaw affaire bi gënoon naa nii. waaw maman ne ah ñu ngi koy jaxasee ak pap maman moo tax demul feneen maman ne indi nañ indi nañ waajooju xaw ma teg ko si boppam maman ne découragé wul mooy gambien bu woon. waaw xam nga maman ne fay na gambien bi nga koy bëgg a rey. moo la benn affaire. te génération consciente empreinte la femme. te animation génération ko nit ak ku ti ñëw ak lu waay mën a wax mënoo dindi la ma fa def. Mm-hmm. yàlla def na ko ba pare. Mm-hmm. parce que man. Mm-hmm. yàlla rek. mooy dogal. te yàlla rek ma mën a fay. billaahi wallaahi parce que xam lu war a loolu. dama am ñaan waajur sama ndey ngi ci maa ngi ci fen daf ma ñaaral. sama baay mi ngi dund. daf may ñaanal mm-hmm. te ñi ma nekkal xam nañ ñi may bu baax mm-hmm. billaahi wallaahi taalaay mm-hmm. man mbay li ma mën mën naa ko ba pare c'est que dama xëccagul dara léegi tey bay baabu fay na ma maa ne kii bay baabu sama rakk la bëgg dem rek ma mi ngi Allemagne mais bu demee déggoo ba am du seen diggante man daf may woo ba lu muy def daf may woo sama rakk la. mais coow li mu bëri ñu naan ay. booy moo la fay maam maa di kenn di xaw ma kii Baye Ba boo la fay. mais kaay ma la bay fay coow li neexoon na ne taay. mbay mbay yow mii rek. Mhm. yow mi mhm. bi nga déggee jóge ci Kouthia la dégg nga ko. DJ Yves mii bi nga ci jógee ci émission ñoo ko defandoon ba nga fa jógulee ba nga fa jógee barki démb. Mhm. léegi dégg nga ko. fii senegal njaay la kaay wax mu leen gën a kaay déggoo ma de. Mm-hmm. te kenn ku nekk da am sa paan. Mm-hmm. lijjanti kopp jàmbur. Mm-hmm. ma xam li sama problème. wax kenn lu ñaaw. du ma def kenn lu ñaaw. parce que lii su wax rek. kenn dund fi lu weesu téeméeri at. ba tax na def fi lu ñaaw war wax ko fi jaru ko. lu rafet wax lu rafet xool Alaaji Mansour Mbaye ba te ñëpp ko bëgg ndax lu rafet lay wax. day boole day jubale ah mm-hmm. suñu bàyyi boobu mm-hmm. kon léegi lan la fi li fii xëccu yëpp dangay dee ba ko fi mm-hmm. doo yóbbu dara xam ban nguur moo dul ci àdduna nguuru yàlla moo nit lépp lay def defal lu rafet waaw eh, nga xam ne dañu dañuy dañu dañoo nekk si ginnaaw waykat ñu si bëri yenn saa dañuy génne single yenn ñuy dem def seen yëfu bopp mais yow gisuñu man xam nga maa ngi sant yàlla maa ngi joué maa ngi dem samay tournée yàlla ak may taral mun xëccoo ma xëccoo ma dara. waaw xam la moo tax. ki ñëw bokk ndey ak baay. Pape Diouf. ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est que nag nit ñi dañu bàyyi weer ci benn fan. mais yàlla noppi bi nga xam ne moom nit la. te boo ko wax ci ci maman ne jàmm. boo jàkkaarloo nekk ma li dootoo ko defati man moom nit amul fitu jàkkaarloo ak man naa ma Pape Diouf lii. <laughs> Ah, wala da ngay jàkkaarloo. soo demee def single maanaam day mel ne day. concurrence mi ngi mi ngi yor matériel boo xam studio boo xam te ni bis ko Sénégal gisee Sénégalais gisee tudd yàlla. Mm-hmm. loolu laa xaar ma dugg foofu enseré toj fa. Mm-hmm. ah kon mi sa bopp daal. dégg ma la. Mm-hmm. man. nit nekk na ci groupe ay tey dama la jox exemple diggante Mbaye Guèye ak Youssou Ndour. Mm. Mbaye Guèye fii ñaata la la ànd ak Youssou Ndour. yàgg na est-ce que boobu ñu bëri judd nañu. yàgg na Mbaye Guèye kañ la génnee uppukaay est mm. premier album uppukaay dinañ ngelaw mm. parce que dafa nekk ci ginnaaw jumeau xaritam doomu ndeyam. toog ci ginnaawam ba mu jot mu def. mais bi mu génnee dégg naa ah, loolu wóorul est-ce que yow du man lu may polémique sama diggante ak Pape Diouf mii polémique amul fa. soo génnee single wax la benn affaire. Mm-hmm. man artiste ba dañ may woo fii. Mm-hmm. pour ma def ak ñoom dara. di yow waaw duñ la gis tamit ngay di yow te da ngaa mën. waaw mais da ngaa ay si loolu. mais xamul waral loolu mbay. man mbay mbay xamul waral loolu. xëy mm-hmm. ni ma dem ak Pape la. mel dama ni ma sincère ak Pape. Mm-hmm. moo tax ñu bëri ñaar bu ñu ko woowee du ñëw parce que moom ku dul Pape dafa intéressé wu la. Mm-hmm. mais da ngay yaatal da mais man mais man kaay mbay. Mm-hmm. ngénte loo dem. éviter wuñ la boo fa tojee kaas yaa tóor. duñ la woo pourquoi yow da nga seer wala. non man yow da ngay seerlee man mbay man man mbay mbay man seerle seerle mu xamal lan la. man doomu aadama laa. te nit nitay garabam. mais dama am kilifa. da bëgg di tàggu paa. man man tey ku ma woo pour ma dem fenn. Mhm. ma ngay fay. fayoo Pape Diouf. Mhm, mhm, ne ko papa ah, man ko ah maa ngi dem defak ak diw nangam. mais mais Malouda Tete Mbaye maa ko def ak Malouda. de ko Tete Mbaye morso boobu nu mu demee dafa tag yaa dégg morso géwél yi bi ko def mbay si invité ma ci dama dem joué ci. comprendre nga. waaye nag maa ngi toog sama penku xarit. mais gis mën nga jël sa responsabilité maamaane suñ ko woowee mu ne kilifa laa. mais man kilifa laa mbay dëgg la. waaw mais bu man dama am kilifa si Pape Diouf. non kaay ma man la. Mhm. Pape sama doomu ndey la Pape ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. Pape du def di ko nëbb. ok. Mhm. fi kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci groupe ku ne. sa leader nga xam moom nga fonk. moom nga teg ca kaw. ndax gannaaw yàlla yonti bi tey lu ma am ci penku Pape Diouf laa ko amee. kon du ma ko jëndee dara. mais ay ay ay kii c'est comme euh, kii euh, Sidi Diop di def benn single nga dem kii. Sidi papaam sama la Sidi sama rakk la. Mhm. Sidi Diop. Mhm. tey buy def dara Sidi ñëw parce que Matar suba teel mi ko yor Matar sama rakk la. Mhm. suñu ménagère la mais sama rakk la sama xarit la. Matar Diop tey Sidi Diop def dara woo ma soxla ma ci damay wax. amul problème. loolu dara. su su soirée yi duñ la gis. ma soirée Syrie saa damay jékki-jékki dem ba fa. ah oui. mu ne xale bu baax mais Waly sa ak Waly yaa ngi mi jàmm Waly sama rakk la. Mm. Mm. Waly Seck sama rakk la. Mm. yaa ngi dem foofu di boof yenn saa non non non li ci ëpp xam nga li ci ëpp day tombe ñoom bu ñu joué ñu ñuy joué. mais nga dem xaw ma. waaw mais day fekk léeg yi. xam nga da koy taxal rek da koy gën a neex. mooy kay ma la gis nga mbay. Mm-hmm. te nit ñi ñoo xamul. Mm-hmm. man ak Waly. Mm-hmm. Waly suma rakk la. Pape Diouf Waly rakkam la. Waly Pape il faut ay xarit lañu woon trop. Ah, ay woon woon nga wax. non déglu ma rek dama la benn affaire. Waly nit ñi ñoo xamul. parce que tey étape day tol foofu liggéey fu muy toll Pape day xat. wàll day xat mm. mais nii nii ñu ngi doon dëgg mënal benn kii benn ñoom ñaar benn se xaw ma duo mais day nekk est-ce que yàquwul dama ni mm. Wally Pape Diouf ñoom ñaar ñëpp ay doom Sénégal lañu mm. Pape Diouf du japonais Wally du japonais ñoom ñëpp drapeau Sénégal lañu yëkkati te tey bii ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne yaa ngi ci lekk sa wërsëg Pape Diouf mënul tere lekk wàllu wërsëgam wàllu mënul tere lekk Pape Diouf lekk wërsëgam parce que kenn ku nekk ak li yàlla bind ci yow di ko lekk balaa nga wujju suñu borom te yàlla na yéex kon léegi lan la wàllu suma rek la wàllu léegi-léegi bu ma gisoon day droit mais grand ci loo nekk ma mbalagante ak moom boo sama xarit la sama rakk la mm-hmm. sama rakk la c'est que sénégalais ñoo bëgg jël ay affaire kii wax fii mais yooyu. yooyu am sax il faut affaire yooyu ci am. parce que mais xam nga ne dama ni Omar Pène Youssou Ndour nekkoon nañ fii. Mhm. ba def ëllëg ak si biir te dara ñaawul. Mhm. Youssou Ndour yaa ngi ko dégg guddi gu kër Omar Pène dem naa ne band dégg nga bañ nga mhm, bañ na. nii nii nii nii nii dem kër waaye. waaye mais bi Thione Seck nelawee Pape Diouf fa njëkk kër waale lañ nekkoon ñun yaa di wax ji non xam nga lan la mooy li ma lax mbay na gaay di ba na yi di bàyyi def yenn yi parce que tey Wally mu ngi ci ay projet am Pape Diouf ngi ci ay projet mais jotewuñu dara mm. loolu laa bëgg Sénégalais xam ko ñoom ñaar jotewuñu dara Pape ak Wally léegi léegi aéroport bi mu fara sa woon léegi nga nga tudd yàlla dañuy bala gante kafre parce que loolu mooy Sénégal ñoom ñaar ñëpp kenn amul jotu déglu kenn ñoom seen liggéey lañ ko concentré wu c'est nag boo tolloo fenn daf ci am ñoo xamante ni euh, yalla na ma yàlla baal mm-hmm. tëgguñu wayuñu mm-hmm. gitaaruñu mm-hmm. mais ñoo nekk ci ginaaw di di di féewale fan si la wa waaw ci ñenn ñi ndax ki am liggéeyam xëy wàcc ah yaakaarul ci wàllu tubéy ki xey wacc yaakaarul ci Pape Diouf tubéy mais boy xëyul wàccoo da nga yaakaar ci Pape Diouf tubéy wala nga yaakaar ci wàllu ko ni nga waxul la saf mais du lolu ay nit bo lu mënul boole bul jaxase parce que kenn duntu fi lu yàgg te dégg gawna na lepp lépp rafet ñu bokk ndey ak baay àddina moo yàggul. mais euh, est ñu ngi koy waa yéen a ngi euh, sa fan si pare euh, kañ ñu ngi maa ngi pare ay affaire benn album bu. ma non non maa ngi pare benn affaire maa ngi anniversaire mais dama dama. anniversaire foo koy defee loolu. non loolu xoolal code bu ah. waaw. kañ lay rek. da ngay gis lu nekk parce que maman war a loolu. Uh-huh. parce que ñun ñooy événement. Uh-huh. Pape Diouf événement di. Uh-huh. te kilifa gi du soxla xanaa nag. Mhm. ñi si ginnaaw di xëccoog moom da ngay bàyyi mu def ba pare. Mhm. ah ñu doog nag jàpp si def seet fu nooy. Mhm. ñu pëtaxol ko fa. njàpp yi toj. waaw oh, man su may jàkkaarloog Pape dafa mel ni Pape dafa am dafa am kersa. dafa yaru. waaw dafa am xam dafa nekk si mais loolu la nàmp yaayam noonu la mel. Ah, man dama xool mais yenn saa dama ko daan kii dafa mel ni dafa am kersa. dama ni la. Ah. boo toogee moom koy xam. moo tax buy def di defantu. Hmm. day day am kersa mës naa kaa laaj këcëb ne ko këcëb Pape Diouf dafa mel ne day ruus nit. Pape dafay ruus nit kere. Hmm. day ruus nit. Uh-huh. parce que moom bëggul bëggul kuy tuutil nit. Hmm. nga këram gi jànq mi ni si biir dem fa nga ni jànq yi jànq dootoo ko defati. bëggul loolu seen tur ngay jaar. parce que nee na amul daan sa doole am mais jànq amul. ba pare dafa mel ne si si li ma koy gis. Deux question ah, dara de mais du du du qui dafa Je ne ku ku xamul dara. Euh, dafa je ah, Sénégal. gis nga mal ah. parce que yenn yi moko ñor. Hmm. gis nga aduna hmm. bu sa hmm. lu ñor. ko dal. artiste la mais sa artiste. non non. ñun boo ñu xoolee ñun ñëpp noonu la ñu mel. Mm-hmm. ay artistes lañu mais yor ñu sa jukki artistes parce que mm-hmm. nañ ñu yaree la daal. Mm-hmm. jërëjëf maman de. jërëjëf Mbaye. <laughs> jërëjëf yow ma lay yaa yàlla na yàlla defal jàmm. sa lii nga nekk nii. yàlla ci yàlla def barke. ci barke Sidina Mohamed ci barke Cheikhul Khalifa ci barke Sëñ Babacar ma yaakaar. yàlla na may Sénégal gi yëpp jàmm. ñëpp am jàmm fu waay mën a nekk la ngay liggéey yàlla ci yàlla teg loxo. yàlla may ñu sutura may ñu mujj ku rafet. may ñu mm. gudd fan ak wér jërëjëf Mbaye. jërëjëf Mbaye